yàqu ko si tool. ñu tax ñu war a nopp. waaw il est il est député dëgg la mais kooku daal sëñ bi. mere leen moo tax ñu jëlee leen fi folli leen. waaw waaw moo wax dëgg yàlla. ñoom moom kuñ mere sax da ngaa war a sant yàlla. d' accord waaw d' accord eh, Imaam euh, Maimouna Ndour na une plainte contre Cheikh Bara Ndiaye bon génn na def yenn ci ay leeral gannaaw bi seex Bara defi woon sorte ci télém boobu la di 17 TV. ci ci ay jafe-jafe dem ci yoon ba ñu jàppoo ni tele bi mën nañ ko saisir nee nag loolu mënta nekk mais nee na en tout cas menacé na mais din te itam porté na plainte ki nga xam ni moom mooy euh, Cheikh Bara Ndiaye jàpp ñi daal koo xam ni la du waxkatu du waxkatu dëgg euh, en tout cas mu nekk coow loo xamante ni si nii est-ce que jàppoo ni xëy Euh, tey Cheikh Bara Ndiaye parce que nag nit ñi dañ koy déglu di ko bàyyi xel euh, bu demee bay def yenn ci sortie yi jàpp nga ne dina ko def te amul ci loo xam ci lu leer loo xam ni par exemple ci la toog. waaw man ndax man xam nga jamono ji su ma déggee ne perte plainte nañ nit benn kilifa sama xel day gën a dal damay xam ne tey may Maimouna mii. Mhm. su fekkoon si jamono Macky sàll la. Mhm. moom moo tooñ wala kii da koo tooñ Baara Baara Maimouna da koo tooñ. baara du dem porter plainte. du ma dem porter plainte. déedéet parce que day xam ne du am dara mais Maymuna ak kudul moom ku bokk ci yeneen camp yi suñ jotee ku bokk Pastef dañuy dem porter plainte ko parce que dañuy xam ne yoon moo fi dox dégg nga lañ waxante man xaw ma ko lañ seq ñoom xaw ma ko mais man xam naa ne yoon rek mooy am waaw may Maymuna bu amee dëgg. Hmm. yoon dina ko jox dëgg. Baara su amee dëgg yoon dina ko jox dëgg. man li dalal sama xel mooy par parloo amul dégg nga yoon mu ngi ñëw di di àtte mu ngi jaarale yëf yi yoon man loolu loolu rek li ma ci neex kanta la ñuy waxante ak yooyu noonu yëpp man bon xaw ma ko daal man li ma yitteel rek mooy yoon jaar ci yoon te xam naa ne yoon bii day jaar ci yoon incha allah. d'accord mais plainte yi dafa takkar naa si léegi ñëpp koo wax rek plainte koo wax plainte dañu dañu commencé amaat génn kóolti. waaw muy loolu mooy loolu loolu mooy li li neex loolu mooy li rafet. dégg nga ku jóg tey ku la xos xosi nga ne maa ngi dem porte plainte jamono Macky sàll kenn dootul plainte surtout ñi nga xam ne faruñoo moom bu ñu la doon rey di la dëbb te ba nga mokkit danga naan du ma dem parce que su ma demee duñ ma jox dëgg loolu jeex na tey mais mun a buñ ko tooñee bu jàppee ne dañ koy tooñ bu porte plainte yoon dox waa APR bu ñu leen tooñee ñu dem ci yoon parce que yoon mooy dëgg parce que ñoom dañuy wax rek mais ñu ngi nangu ne léegi yoon del delsi na yoon amaat na yoon a ngi amaat ci réew mi loolu ñu ngi koy nangu léegi donc euh, loolu la daal. loolu jàpp nga ne ci rupture itam la la bokk mooy yi nga xam ni euh, diggoon nañ ko diggoon nañ ko askanu Sénégal. mais imam bon sujet nag des na mais xam naa ni fi mu ne nii moom hmm. yaa ngi <laughs> yaa ngi yaa ngi souffrir quoi. baal baal baal ma cabaxal ci biir rek. muy presse bi nga xam ne instant bi nii ñi ngi ñi ngi euh, ñi ngi dund lu lu métti ñi ngi leen di xoj ah parce que Walf ITV ba ci 7TV boobu noonu TFM. maanaam ci wàllum fisc dafa mel ni instant bi daal bu ñu suñu làmb ak stade instant bi ñoom dàkkal nañu seen parution euh, est-ce que lii nii bu bu continuer itam est-ce que jàppoon ni war nañu mën a waxtaan pour le moment nag pour jéem a sauver li nga xam ne moo di moo di presse wala da nga jàpp patron de presse instant bi lu leen dal ñoom ñoo ko teg seen bopp. Euh, nga fer dafa bétti. Mm-hmm. fer dafa métti euh, ki ngay feral boo ko bettee feral ko day métti <laughs> presse bi. day day jooy rek. waaw presse bi fi mu ne dañ leen a feral. <laughs> ndeysaan dañ leen leen daan jox ñoom régime yu fi nekkoon régime bu ñëw dañ leen di jox seeni ween ñuy nàmp <laughs> dégg nga ni nu mu leen neexee léegi nag régime bi dafa ñëw feral leen eh. waaw daw régime bi dafa ñëw feral leen ñoom kenn tooñu leen ñoo tooñ seen bopp ñoo tooñ seen bopp. waaw parce que man dama xam nga bi bi bi affaire coowal impôt yu jógee. Mhm. yàlla xam ne dafa maa bett dama ne ah waa ndekki ñoom ñoom nii lañ mel. ndeke ñoom ñëpp tey ñu ngi yor ay bor. te nga fay ñu impôt. loolu daf ma jaaxal ma ne ak seen làmmeñ yu rëy yëpp nii lañ mel. ñi que ñi ñi ñi tax réew mi ndóol ci lañ bokk ñi tax mënuñoo tabax ay hôpitaux. Mhm. ak i ak ak i ay école ñu ñi ci la presse bi ci lañ bokk. ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo manque ñi manque deretu askan wi ci lañ bokk. mais en dehors euh, ci impôts yi. Mhm. ndekkee ñoom ci seen biir sax ñu ngi yor ay bor ay problèmes yu dul jeex donc ñoom euh, yaa ngi comprendre. Mhm. lu bëree bëri li tax ñu daan jàppale régime bi fi nekk duñ ko nangoo song parce que yu mel noonu la parce que régime yu bon yi noonu la ñuy def ak presse. dañ lay jox nga noppi ci seen mbir. dañu dañu logoon. waaw dañu logoon xam nga moo tax damay wax ne Ousmane bi ko yàlla naree dimbale. Mhm. da ko indi si jamono réseaux sociaux. waaw réseaux sociaux imagine sonk mi fi mu fëllee. Mhm. bu réseaux sociaux amul woon. waaw waaw ak ni ko presse bi di xeexee. Mhm. ak niñ koy sosalee. yow fi mu nekk nii ñun ñëpp xam nañ suba bu daanaka suba xam nga li presse bi di di bind ci Sonko. xam nga ko. bu ñu xëyee suba. la tribune li muy bind ci Sonko yow mën nga koo xam te liiroo ko. waaw ak keneen ak keneen. journalu ma jàmbal bi li mu war a wax suba war nga koo war a mën a xam donc presse su demee ba yegg foofu wax dëgg yàlla euh, yà yàqute yàqute am na. Mm-hmm. mais li ëpp solo rek mooy ñi ñu ko séqal yoon rek la ñuy doxal. waaw yoon rek la ñuy doxal mais man dama jàpp ne dafa am presse yoo xam ne dañu war a tëj dañu war a dee. parce que noonu lay demee parce que boo daan dund ci lu xaraam loolu ñu lay jox lu xaram loolu nekkatu fi mais deyal. maanaam tëj. waaw tëj. ay chef de famille ñoo fay liggéey de imam ay ay ay père de famille. mais wërsëgu wërsëgu famille ku ko yor. yàlla. wërsëgu famille sabab bi xëy na moom mooy. non mais ñaata ñaata nit ñoo nekkoon ci organe de presse ñëpp xam leen fu ñu xëy bàyyi ko dañoo torox. mais taux de bi li fi nekk rek imam. doyul mais mais yeneen yeneen presse day judduwaat. yeneen presse waaw. àddina noonu la di àddina noonu la ñaata journal nga fi xamoon si jamono Abdou Diouf ana ñu déggatoo leen dee nañ bu yàgg. yeneen judd Ablaye Wade bi muy ñëw bi muy bi muy daanu nguuram di daanu am na journal yu fi nekkoon yëpp dee nañu presque waaw njóogu wàkk le midi ay la message nguur ga daa daanu rek ñu dee parce que nguur moo leen doon jëfal moo leen doon waxloo moo leen doon jëfloo régime yu bon yëpp loolu lañu am Macky Sall mii journal yu bari moom moo leen doon dundal ñuy noppi ci moom di ko di ko jàppale di ko di ko ragal gannaawam di xeex Sonko di ko sos comme Macky dee na nag dañuy fippu nii rek mais ñu bëri ci ñoom dañuy dee dañuy dee damaa la wax lii léegi yeneen day juddu àddina noonu la. Hmm. bu nii bu ñii di jooy dëj ñëla ñu ngay ngénte wala du noonu àddina noonu la bu ñii di sang. Hmm. niw ñëla ñu ngi sang liir bu juddu noonu la. àddina noonu la bu ñii di dem ñee ngi ñëw waaw mais am na presse yoo xam ne wax dëgg yàlla euh, seen nekk fi amul benn njëriñ li gën mooy ñu ñu jóge fi. d' accord d' accord am na am na am na solo bu baax a baax Imaam mais euh, xam naa ni ñu ñu ñu ñu bàyyi la nga. nga dem dallu ji rek. parce que xam naa ni. tey moom affaire yi daa sant Cissé quoi. Hmm? ma ne affaire yi daa sant Cissé ak kebe